trois espoirs. asalaamaaleykum mbokki internet Baol TV seen lamb TV lamb diaspora Paul bu rafet mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal comme niñ ko tàmm di defee rek à chaque fois bu mbër daanee ñu dem seeti ko seet si ndaanaan champion muy Thiatou Daouda Fall caat kenn doot ko présenté mu doon bëri ki nga xamante ne mooy gin bu yoof yàlla ànd ak moom xañ gin ñu koy félicité di encouragé gin bu yoof ma ànd seek sama rak sama xarit ki nga xamante ne mooy ndey mbàkki sama baat bi daa di stade bi dafa ma bàyyi ndey mbàkki mu nuyoo caat nuyoo ñu daal di wéyal ki nga xamante ne mooy caat ndey nuyoo rek après ñu doxal du gara doxalal rek ayca maa ngi leen di nuyu ñun ñëpp ñu topp ci sitit ñuy doxal làmb ñu ngi fekk fi nga xamante ne mooy champion bi la ba Balla Gaye 2 ah l' espoir de di Thiatou Daouda Fall daan gin bi yëpp ñu fa yéene waxtaan ak moom wàccaayu combat bi jour combat bi ak suba lan moo nekk ci xelam lan la nar ak après dafa leer Thiat maa ngi lay nuyu di la ziar waaw maa lay fay pël bu rafet di nuyu Ndeye Mbacke di nuyu seen caméraman yi di nuyu waa axlu làmb di leen remercier bu baax baax a baax a baax di nuy àdduna mhm. comme nañ koy defee saa su nekk rek di la féliciter encore une fois ñu ñëw ci combat bi wàccaay bi dayo combat bi lan moo waraloon nga jël Gine bu Yoff. waaw pour man de waxoon mais xanaa ma waxaat ci rek parce que dañoo dox sama combat ay mbër yu bare ñu yàlla dogal moom mu nangu bu rek ma sant ko ci bu baax a baax a baax a baax loolu moo waral suñu laam. moment bi nga koy jël ban yàqin nga ci am ak coow li ni mu bëree booy xool ci combat bi. man boog ci li ma bàyyi xel moom moom lañ joxoon favori loolu dérangé wu la woon benn yoon. non man loolu daf may neex franchement nag mais bëreeg nit ñu naan mooy favori bi parce que damay rey sam bopp bu ne mooy favori rek man damay rey sam bopp raayante xam ni man am naa làmb am naa combat te dama war a daan. Mhm. ñu ne xeexkat la ngay bërekat coow li bëri ci côté xeex caat bu mu xeex na fexe jàppante moo gin bu yoof yaa gin ci biir géew gi bi mu simee ko jàppante am na fa. mais am nga benn euh, jàpp bi nga jàpp boobu dafa mel ni bàyyiwoo ci xel mu mel ni da nga yàkkamti woon que bëri bi jeex kut ko kut loolu lan moo la ko poussé woon pour nga def ko. jàpp bu ma jàpp. mooy bi ngeen jiwaloo. ah juste que ni juste que ñuy jàngal mooy chaque jour dama koy wax man mënuma bëri mais daan laa mën daan lañ ñuy jàngal finition daf ñu manqué woon te léegi ñu ngi koy jàng bu baax a baax a baax a baax a baax ci remercier ñu ngi ciy jàngal bu baax a baax a baax a baax. di remercier ñi ma topp nag parce que man ñoom laa am ñoo am seen ay ñaar dërëm seen ñett dërëm di ma ko jox ku si mel ne été yàgg nañ ay ñoom njaw fans club bi yëpp waaw di bëggee waaw mafia malu guti bi yëpp di ko teg si loxo Maxa Ndiaye parce que gis naa convoi bi mais bu dee mafia géejuwaay bi nag mu tey dama koy teg si loxo moo Ndiaye waaw parce que laa ma ji toloon na fi nga xam te ni métti woon na trop su ma ne méttiwul damay fen ba tey ci suba waaw dinañ ñëw foofu wàccaay beeg koom beeg yooyu yëpp dinañ ci bi ngeen jàppante jël nga ay coup coup yi nga jël. waaw dóor na de dóor na. mais man loxo diis na. sama yaram dafa tàng de. yëgoo ko. non su lu ma ci wax moom damay fenn. boobu yow loo gis moment boobu loo gis. daan rek gisuma leen lu dul daan. Ah. Mhm. caat caat. ñu gis ñaari defet yi caat Daouda am caat am yëpp. excès de confiance moo tax mu koy ñàkk ñu gis bi pa muy bëre ko expérience mu ñëw ànd ak dal lan moo loolu lan lañ la di waaw dama am ay mag ba pare di doom mag ku mel ne suñu papa liiru liiru ku mu nekk sa wet waaye yow loolu rek jeexal na wax mi ngi nii waaw ah, mais dara la si ñun bilaahi waaw léegi isa duma la sax waxa de kii non loolu la ñuy def sax waaw damay wax doo xaar bañ jox la jarul may xaar ndax sama xol seet non non non jarul xaar kii xale la ñu ko ñaanal yàlla ko yàlla lafal cat yàlla na ko yàlla lafal cat man loolu rek laa koy ñaanal bis bu ko yàlla lafalee sama rongoñ dootuñu ko gaaw gis de yàlla na ko yàlla lafal cat loolu rek laa ko yàlla ko yàlla lafal cat xale la judduwul day nàmp ba léegi barki Sëriñ Bamba day nàmp ba léegi xale la moo tax may leen len ko ñaanal yàlla lafal ko cat loolu moo tax ma wax loolu non ban biberon nampul biberon de. lan lay namp xale oh, billaay pël ma la wax doo caaxaan judduwul judduwul caat caat jeexal na wax. tetin tetin tetin. titin waaw titin titin lay sax titin moom lay sax xale la day nampu loolu lay wax na ko yàlla fal cat waa ak pire. ak pire waaw ak pire day. pire pomme na ko yàlla fal cat ndax kii. Euh, tubaarikàlla macha allah mbër gi da koo nàmp kuy sa papa jeex la nay wax kuy sa mag les deux kuy sa mag Aline Fall daaw doo Aline Fall Aline Fall mbër la woon de mooy magu lees mu dem ba gis nga ko mbër mu yàqu la léegi mag ja daal ñëw lees gis nga ko li ko yàlla dogale ah léegi moodu moodu la kii nag mooy xale moo tax nan ko ñaanal yàlla lafal ko cat ndax seen kër dafa war a am champion ndax seen papa da ko fee liggéey waa ay magam man daal ne yàlla na ko yàlla fal cat bis bu ko yàlla falee cat bis bu ko yàlla falee cat nga xam ne ndaanaan la lool laa ko di nuyu suñu papa booy njaay mii ndaysaan jóge ba waalo ndaysaan euh, fàttewul démb mook suñuy papa la woon père Aline Sey père euh, père Balla Gaye père da al Daado Fall père Aline Fall mook ñoom la woon muy booy njaay mii ak père Aline Sey muy booy père sigil ñu gis la kii moo doon jat ba jamonoy bay bàlla di al di bëre te Alioune Seye di bëre borom jat yaa ngi kii mooy Papa Boy Ndiaye yàlla na la fi yàlla yàggal yàlla na fi yàlla yàggal ndax gis naa taxawaay bi Jackson su dee bëre nga ñëw def déplacement daal di ñëw tey defaat nga ko nii Youssou Ndour su dee bëre nga def déplacement maa ñëw kon daal fàtte woo démb xamal ni say doom ñoo fi nekk di yaa ni ngi leen di jàppale yàlla na la fan yu gudd yàlla mu la cet at làmmiñ fi nga jàpp foofu la ñaanal xale yi ñaan ñaanal xale yi waaw fecc nga fecc yu yàgg sànq waaw sama xol yaa yàgg nag waaw merci waaw jërëjëf pël euh, sama xol sedd sa xol bu seddee doo doo xam ne yow nekkuñ ci démb tey lañ kenn xamul li nga fi euh, man ak yow a loolu lan mérito di lu fecc lu yàgg pël duñu ay xale maag yow di da ngay bañ bañ lu nii rek waaye pël nag yooyu attention nag xale yi ah ñoom Fatou Mbacké la at kooku may bañ a tudd mais man damay fecc fecc yi si moo da ngay kii rek man ak yow a pël waaw tubaarikàlla tubaarikàlla la xol seet fecc pël yàlla naa yàgg a fecc yàlla naa yàgg a fecc ku sa xol sedd nga fecc lan la yal naa yàgg a fecc man daa li ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla lafal cat man loolu laa bëgg ñëpp ak lu làmb ñëpp nañ ko ñaanal yàlla na ko yàlla lafal cat xale la nee naa la xale la xale la yàlla na ko yàlla lafal cat te musa ko ci say ah non non non du question simple pël sama xol seddee nu ma neex laay doxee nu ma neex laay waxee dimbali ma pël bul ma tax a wax waay. ñu ñëw li nga wax nga ne dafa am lu leen manqué woon am ngeen ko yow finition lañ la jàngal mooy daan kese ba tey ci nga nekk caat nga ñëw si stade wax dëgg neex yàlla xale yi topp la mbooloo bi topp la ñuy ñaan yàlla mu yokk tey bi nga ñëwee combat bi nga jógee ak bi mbooloo bi nga gis mu yokk nan la def ci yow ci stade bi waaw jom la ma yokk de waaw xam ni man tey jii lu mënti xew ndam rek laa war a ñibbi si waale. kon tey bakkan ba daal arène ba rek la naroon. bakkan nga wax bi laa fa teg. ah yàlla. kon tey moom teg jeexal nga yóbbu. dañ maa yóbbaale moom moo tegoon jeexal man dañ ma yóbbaale. Ah maanaam man jeexaloon naa nit moom ma yóbbaale. yaa gën ko sa jël sa moroom te xamul sa morom. Ah, moom de xam naa yaakaar naa ne xaw ma mais man xam naa ko bu baax. yow foo ko xamee ko doon xool. non du la nëbb rek du ma fen de ba may signature rek euh, kii. mburu rëbës bi waay déedéet keneen ki Sosoma numéro 2 fekk caat yoof mi ngi waroon bëreeg Pap Cam oh. moom moo andi caat yoof ba mu ko xoolee daan sama turandoo paaw bi kii déen bëri maa moom ah te loolu 2019 laa xam ne dinaa bëre xam naa ne dinaa bëre ma ko jaar jaar laa doon xool instant <laughs> kon da ngaa kontaan. non ba lii moom. boo hasard ba ma déggee ñu ne nangu nu bëri man ah kontaan naa de wax dëgg yàlla. nga sa gént gi nga ne naxul. waaw. Eh. Mhm. léegi loo koy wax bi lépp weesu. ah di ko encouragé rek di ko wax mu jugaat entraîné nga xam ne lam mu ngi si kanamam di ko ñaanal bu amee combat di bëre ku dul waa Guédiawaye du sama mbokk yàlla na ko yàlla may daal. Mm. bi mu si meekoo sa yaram daawut sa man may caabanteeg Balla Gaye yaabanteeg fils de Balla nga ma daw yaram ay ñoom gën ko diis quatre-vingt-dix mille fois yaram sama yaram amul pën a bay daw de. Hmm. xam nga xaw a am tuuti ñaari xel ñaar. mais moom dëgg man. man moom des fois dama naan man issa wér naa. parce que man du ma sax xool sama adversaire man maa ngi sama boobu. kon lijjanti woo ko sax yow. wallaahi lijjanti wu li nga doon lijjanti mooy arbitre na sifflé. su ma su ma juumul ba muy doo a dugg si. laa ko gis ak ba ñuy waaj ba ñu war a ba ñu moom rek ñu war a bëre ci géew. sa xel jox la lan. <laughs> kii ba mu jëlee avance am ba léegi ndam rek laay gis moom gisuma ci moom leneen. mais bi nga ko gisee ci géew gi jaxaraan yéen ñaar. boobu kenn àndoo kenn. ah man dof laa de man du ma xalaat de lu leer laa la wax. la ko tax sampoo jaaga. bu jaaga <laughs> yow gise ko arbitre bi la mu taxaw. ma dox nang jëm si kawam muy arrière kooku nu muy sampee jaaga. ngay diree ko topp ko mu dee. gis muy topp ma xam ne kii su ma ko jàppee dama koy tër rek dem jàpp. nga jeexal ko nga def ko nañ ko jeexal. am na yoo xamante ne jarul jarul sax yàq temps. Hmm. waaw. kon ginnaaw bu lépp jeexee nee na mu lay masaw léegi nag ñu ñëw ci wàccaay bi ku ne xam na làmb dafa métti ngay xale nekk ci gox noo ko waajee ci koom beeg. un franc ko. ah bon ay bor. lu ne yor naa fu mu nii kay. ay bor bu ñu dimbaliwul moom da yoon ma ci kasa bi. <laughs> xanaa nga jàpp ci rek yaa ngi nday Mbàkke ngeen si jàppul si jàppul ci kasa bi laay de am naa am naa benn maire bu ne ci kër gi ah FT fi mu ne nii de bëgg dóor laa illaa la nen dam nen dama ngaa yoreel xaalis fi mu dama koy leb rek dama koy woo naan ko defal lii du ma ko fay aw ma fayam suñu waa kër ñëpp mag ak ndaw booy ndaw yi sax booy ñoo ma gën a bëgg victoire boo bëggee dégg dëgg rek tus doo xool doo xool ñii du xippi xanaa gisul. ah xool bu rafet. dafa amoon ñaar ñaar ñaar tey amoon ñaari làmb ndax kii dafa bëree ba pare ànd ak ay gaayam di wër géew bi ñu gis mu jax xataraayu bëgg a jëm ci ñoom daam loo ko def wala li nga li nga li nga daan ki nga xam ne moom la indi moo ko metti lan la. lan laa ko nga rek. nee na ñaane ko yow laa ndax da nga koo tëkku wala lan nga ko def ba mu mer. ba ba mu fee tëkku kenn. Ah, lu tax mu ñëw. est-ce que gëlëmu ma. man daa mel damaa gëlëmoon de tëkku ma fi tëkku ma fi kenn nekku ma fi tamit di tëkku kenn ku ma laam booleel daal ñu bëri ak moom. lan moo tax mu ñëw bëgg la songi ji bañ jàpp ko. yow xatraay mujj yow yaa ma ko wax gisuma ko de bu dëgg rek neexee lu ma ci wax damay fen gisuma ko. gisuma ko man aka neexoon kenn song ma doo egsi. Hmm. d'accord nee na gisu ko ñu ñëw ci wàccaay bi mobilisation bi noo mobilisé woo. Euh, autorités yi nga xam ne ñoo nekk Guédiawaye jàpp nañ ci wala 3S4